sunu gan euh, euh, ministre transport aérien Maimouna Ndoye Seck salaamaaleykum. aleykum salaam Babacar Fall. di nuyu euh, El Hadj Ndiogou bi ñu àndal ci waxtaan wi ministre transport aérien moo yilif itam ñi nga xam ne ñoom lañu ñu dénk wàllu météo ci ci Sénégal laata ñuy xuus ci waxtaan wi waxtaanee tuuti météo poussière bi si waat démb ci ngoon ba léegi poussière gaa daana am ci Ndakaaru ak yeneen dëkk waaye du ñuy faral di gis muy dem. ñëwaat lan moo waral euh, euh, lii xew fan yi euh, ci wàllu jaww ji. waaw li xew moom xam naa ne conséquence su changement climatique yi la ak désertification parce que garab dafa am solo ci dëkk moom mooy tax bu poussière jógee dëkk di dem dëkk garab yi mën ko téye xëy na nag li garab bareetul ci ndakaaru moo tax poussière bi faral di jógee Mauritanie ak Algérie di ñëw Séné di yegsi si Sénégal ñetti fan yii di ñëw nag météo ci ay saytoom mu prevoir ne du dakaar rek sax nooru Sénégal yépp dina bari poussière ba tax ñuy ñaan ñi nga xam ne dañoo xaw a xiiban ba mel ni man ñépp ñu ku ci amul soxla bu jàmp ci biti nga bañ a nekk ci biti lu bari. Mhm. pour mën a préserver sa santé. ñi am asthme ak ñoom seen. waaw ak ñi am allergie yi. Mhm. waaw Maimouna Ndoye Seck ministre transport aérien kon di transport bi yitteel wàllu avion yi la xew ci Éthiopie bërki démb avion boobu nga xam ni moo jóge ci aéroport ba rek euh, matul fukki minute mu mu daanu xeetu avion bu ñu naan Boeing 737 euh, Max foog naa noonu la euh, mbaa yooyu moom. Euh, am nañu réew yu bëri ci mel ni Chine ñoom nee ñu ak Éthiopie sax ci boppam avion yooyu nañ ko teggandiku ci suuf en attendant ñuy xool lan mooy problème bi mbaa yooyu amul yi ñëw fii Ndakaaru Blaise Diagne. waaw am na ay avion Boeing yuy ñëw Sénégal euh, defe naa éthiopienne sax avion bi daan na fi ñëw bu mel nii waaye li ñu mën a wax euh, di door rek di massaw ñi nga xam ne yëpp ñoo ci ñàkk seen mbokk. di leen ñaanal yàlla teeru leen ak yërmande di waxte tamit ne mbiru avion moom malgré accident yi ñuy wax dafay li gën a sûr ci àddina transport ci avion mooy li gën a sûr ndax ñi ci gaañu ci at. moo gën wóor sax woto. moo gën a wóor sax woto waaye li ci nekk mooy ay accident moo gën a spectaculaire li tax mu gën a spectaculaire mooy bu accident amee nga mucc ci du yomb. te ñi ci ñàkk seen bakken day faral di bareendoo dëkk yi muy concerné di bari ndax bu ñu jëlee avion bi lu ma 157 personnes ñàkk nañ ci seen bakken plus de trente nationalité concerné nañ loolu moo tax chaque fois bu accident amee àddina yëpp di ci yéemu loolu nag moo waral dëkk yëpp ne mbirum avion du affaire benn dëkk ñu am organisation boo xam ne moom la ñuy tuddee OAC yi muy saytu lépp lu jëm ci mbirum avion di indi règle yu sécurité règle yu sûreté ba tax avion sax bu ñu ko defaree balaa ñu koy def ci jaww ji dafa am certification yu bari yu muy am bu ñu fàttale ko avion wu Air Sénégal bi ñuy wax Casamance bi mu fi ñëwee ci fan yële ñu naan dafa ñëw rek dellu dafa nekkoon ci ay testam ndax avion buñ ko defaree sax balaa ñu koy commercialiser dafay am ay certification su waree dem ci benn dëkkit dafa am test yu bari yu muy def test yooyu yëpp nag Boeing bi def na ko ba tax lu mat ay weer a ngi nii pour ne pas lu ëpp at a ngi nii muy daw li ñu seetlu nag ci fan yi mooy ci ñaari weer dañ ci am ñaari avion yu mel noonu yoo xam ne dañu daanu mesure préventive yi ñuy faral di jël ci àddina mooy bu loolu amee dañuy taxaw pour xool lan la ndax accident avion bu amee day mel ni rek la Nelson laa doon wax ne du ma échoué damay gañe wala ma jàngat mbirum avion noonu la mel su accident amee ñëpp dañ naan teg enquête xam lan moo xew pour ëllëg lu mel noonu bañ a am. justement naa ne loolu moo waral loolu accident avion bi ci mujj soxal ñu euh, léegi moo ñeenti at euh, avion Sénégal boobu nga xam ne avion buy transporter ay malade la ba mu daanoog léegi euh, enquête bi lañ cee forandi as tuut rek waaye mën nga doon wax tey jii ci 2019 gi ginnaaw yëf yi 2015 la xewoon loolu fu mujjee ci tënk ci enquête bu ngeen doon tënk enquête bi lan la leen jox. xam nga enquête avion boobu li ko tax jafe. mooy avion boobu ba léegi kenn gisu ko xam nga ñu ngi naan avion bi daanu bërka démb ñaari boîte noire am gis nañ ko loolu day tax bu ñu jàngatee li nekk ci biir boîte noire yooyu ñu mën a xam exactement lan moo indi accident bi accident wu Sénégal bi malheureusement ba léegi avion bi kenn gisu ko kon boîte noir yi kenn gisu ko am na nag njort yoo xam ne njort nañ ko ci li nga xam ne moo doon wane ban altitude la avion bi toll ñu ne loolu la ñu yaakaar ne moom moo am défaillance ba mu laalante ak beneen avion bu gën a mag am na sax ñu naan dañu rombante rek ndax ñaari avion moom bu ñu laalante en général ñaar yëpp ñooy yegg suuf mais dañu jegente ba avion bi gën a ndaw daanu loolu mooy li nga xam ne moom la njort ci enquête bi parce que ama amaatu ci beneen xibaar parce que xam nañ ne bureau enquête BA bureau enquête analyse ñu ngi woon ci liggéey bi lool rek lañ ci jàpp loolu lañ ci mën a jàpp amul leneen. waaye liggéey boobu fi mu nekk tëj nañ ko ndax euh, affaire enquête avion dafa am charte yoo xam ne bu defee benn at dafa am rapport booy génne su fekkee gisoo ci dara bu defee ñaari at it am looy génne léegi nag tëjani nañu enquête bi ba ba ñuy gis élément bu bees boo xam ne. moom moo ñu mën a may ñu ubbiwaat ko. mais au plan pénal responsabilité yi yooyu ndax xam na ne euh, xëy na loxo nit am na ci am na ci ci am responsabilité waroon def defuñu xëy na mbiri xew euh, mbir yooyu fu mu toll wàllum euh, enquête bi ci au plan pénal defe bi ma fi mujjeel li ma tontu woon lay tontuwaat rek ñun ministère transport aérien enquête administrative la ñu yor boo xam ne bit bi mooy fexe ba loo xam ne moo sooxe woon ba accident am dootul mën a am loolu def nañ ko mesures yi ñu ci war a jël yëpp jël nañ ko li ci des nag justice moo ko moom defe naa ñun amuñu ci information. Mhm. Euh, Air Sénégal euh, bi nga xam ni mooy compagnie bu bees bi ak avion boobu mu commandé ca France euh, gis nañ ko mu yegg si ca jóge ca Toulouse ñëw ca Roissy aéroport Roissy ca Paris kañ lay yegg si kañ lay tàmbali ay mbiram ndax lañ ko waroon mottali testam yow ñu doon def yëpp est-ce que lépp yemb na fi ñu toll nii est-ce que am nga ci xibaar yu mujj. waaw am naa ci lépp xabaar ndax euh, compagnie bi commencé na ay euh, vol commerciaux sur Paris depuis le premier février. waaw mooy dañoo loué avion. dañu dañu loué woon avion wala dañu affrété woon sax avion muy loo xam ne compagnie yëpp dañ koy def bu ñu amee avion sax boo xam ne dafa am tolof tolof dañuy affrété beneen avion ñu commandoon euh, benn avion boo xam ne yaakaaroon nañ ne premier février dinañ ci mën a commencé vol yi. Euh, Rolls Royce bi nga xam ne mooy defar moteur yi amoon retard ci livraison moteur yi mu am délai supplémentaire ñu affrété avion comme ni ko compagnie yëpp di defee waaye depuis vendredi defe naa da nga ne avion bi dafa jóge Toulouse dem Charles de Gaulle waaye avion bi dafa jóge Toulouse ñëw aéroport international Blaise Diagne. Ah, vendredi ci guddi. Uh-huh. la yegg si aéroport Blaise Diagne. et depuis matin vol commerciaux wu Air Sénégal yi yi jëm Charles de Gaulle ñu ngi koy opérer ak avion A330 Neo Casamance donc vol boobu ngeen gis mu yàgg Charles de Gaulle fii Dakar la jóge ah, yàpp passager dem et depuis samedi Air Sénégal mu ngi utiliser avion boobu di def liaison Dakar Paris Dakar. benn avion rek doy na ci Paris Dakar am. Euh, benn avion moom moo la am na beneen avion A330 néo bu war a ñëwaat ci deuxième semestre 2019 te ni ma la ko waxee rek euh, compagnie aérienne moom dafa am ay avion yu mu moomal boppam avion yoo xam ne daf koy loué ak yenn yoo xam ne su ko laajee daf koy affrété mais pour le moment lan moo tax ngeen tànnu rek dem Paris bi alors que xëy na am na yeneen destination yoo xam ne mën na cee tax ba ngeen for ci dara xam nga li ñu def defuñu ko rek ci làmbatu ndax bi ñuy créer Air Sénégal dañu def benn étude boo xam ne étude bi duré na lu ëpp at di jàngat yan yoon mooy yoon yi nga xam ne moom moo gën a rentable pour compagnie bi ak yan tibu avion lañ fa war a def te jàngat boobu li mu wane woon mooy ne ligne Dakar Paris bi mooy ligne bi nga xam ne moo gën a rentable ci réseau wu compagnie af sénégalaise ndaxte ni ñu ko xamee euh, aviation ñaari dëkk dañuy seq ay accord yoo xam ne ku ci nekk da nga am nombre yi avion yoo war a indi diggante Dakar ak Paris nag Air France daf si am droit wala France daf si am droit jox ko Air France Sénégal am droit suñu compagnie yi ñu amoon ñoo yoroon droit yi ñoom lañ ko dénkoon bi Air euh, Sénégal Airlines tëjee ñu jël droit yooyu abal ko Corsair mu ciy liggéey ñu am nag benn marché boo xam ne mu ngi fi ndax ñëpp xam nañ ne li fiy ñëw ci Sénégal ci passager suñ ko xaajee juróom euh, buñ ko xaajee juróom benn bi Paris lay jóge donc foofu la passager yi ne moo tax avion bi bi njëkk a ñëw ñu teg ko ci yoon boobu ñaareeli avion bi nag bu ñëwee en complément dinañu jàngat ban destination beneen la ñuy dem ci Europe ndax ñu ngi dem si yeneen destination am nañu yaari à trois cent dix na ay sénégalais yu dem ak dikk tamit euh, diggante Ndakaaru ak Italie. waaw loolu yëpp ci jàngat bi la waaye li ëpp yëpp Paris la ne ndax euh, avion wax naa ko sànq bi may wax ci accident yi ñi ciy nekk yëpp du ñu doon ressortissant wu benn dëkk li ci ëpp du si avion bi jóge hmm. Paris du nekk sénégalais. Hmm. dina nekk français dina nekk ñene yeneen nationalité loolu nag jàngat boobu yëpp. moom moo tax ñu commencé Paris yaakaar nañ ne deuxième avion bi bu ñëwee dinañu war a mën a dem Italie dinañ war a mën a dem Maroc dinañ mën a war a mën a dem xëy na États-Unis ak sax Canada nga xam ne de plus en plus ñu fay am ay sénégalais ak ay Brésil ak yooyu yëpp ñu ngi ci jàngat bi. balaa deuxième compagnie boobu en Sénégal bokk na ci Macky Sall mi ñu falaat di ndamo euh, yéen moom ngeen di tiitaloo euh, ak yeneen ak yeneen waaye euh, seen ndam politique googu. Euh, ngeen am euh, ci élection yi ñu weesu bokk na ci gën a bette ndam lii Macky am ci ci Ndakaaru waaye nee du du ndamuk euh, liggéeyu politique ak ñoom seen xëpp xaalis ci dëkk bi bokk na ci leneen ko may yow yaa ngi yor sa kuréel di jàppale Macky Sall di yëngu ci Médina rawatina mooy sa base loola mën nga nu ko firndeelam. xam nga ku ndamu ku am ndam di nga ndamu ndax defe naa dañ ñu bëgg a terroriser rek. waaye dañu am ndam loo xam ne amul laam-laam ndax Babacar dama lay déglu keroog euh, vingt 24 février yéen seen bopp bi 10 heures di jot xam ngeen ku gagné xëy na xaw nañ leen xuuxal tuuti ngeen dellu gannaaw. xuuxaluñ ñu de. ah dégg dégg naa la nga ne euh, au-delà des chiffres nañu jàngat ndax conférence de presse bi ça ne signifie pas que ñii nangu nañ seen defet yow laa dégg nga wax. maa ko wax waaw. te da ngeen ñu tàmmaloon. bu élection daan am seen statisticien bi defe naa cakkaan la tudd. Mhm. ñu daan ko déglu bu baax. bu huit heures mu jox ñu première tendance balaa dix heures mu jox ñu tendance lourde ñu dem tëddi te bi yoon dañu xaar ba minuit ngeen xaw a yox-yoxal tuuti. ñu xam ne ñu xam ne yëpp yi sotti na ñu dem tëddi. donc victoire bi defe naa amul lam-lam te bu xaalis doon joxe ndam kon defe naa président am du Diouf. du perte élection 2000 président Ablaye Wade du perte élection 2012 parce que respecter sénégalais yi sax dafa tere nit mën ne xaalis moo tax nit am ndam ndax nit amul njëg. mais parti pouvoir aussi xam nañ ne dañuy am doole financière maanaam xaalis dëgg-dëgg dañ koy joxe te tamit euh, dañuy am moyens foofu sax la ñuy rawee ñeneen ñi nga xam dañu. li Mariam Faye mu doon wari nit ñi nag loolu fu ngeen koy dugal. man man de jotaguma wari Mariam fay xëy na xëy na dafa yorul sama numéro mais jotaguma wareem li ma li ma waxoon lay dellu su fekkee ne woon alal mooy tax nit gagné élection parti au pouvoir du perte élection lii tax nit gagné élection mooy nga defal nit ñi loo xam ne jar na na leen mu falaat la wala nit ñi gis keneen koo xam ne moo leen gën a doy ñu falaat ko te defe nañ ne loolu moom moo tax Macky Sall lu mu defal Macky Sall li mu defal waa Ndakaaru defe naa bu ñu koy lim duñ fi jóge xam nga wax nga Air Sénégal wax nga euh, TER bi wax nga yeneen ak yeneen autoroute yeeg euh, yi nga xam ne ndimbal yi nga xam ne nit ñi am nañ ko yooyu yëpp di lu bari muy bilan bi te bilan bi sax li sañu kanam moo ko ëpp déception bi ma am rek man ci dakaar foogoon naa ne dinañ passé cinquante pour sax jege nañ ko waaye man sama jàngat li ma gisoon ñun ñi nekkoon sur le terrain yaakaaroon nañ ne fii ci Dakar dinañu dépasser cinquante pour loolu mooy yéen da ngeen naan betteel ñun ñi nekkoon ci dakaar nekk ci terrain bi depuis ay at foogoon nañ ne euh, dinañu dépasser cinquante pour cent yi kon ñun sax déception lañ ci am waaye comme élection yi élection nationale la woon dañuy rafetlu ndam li nga xam ne moom la Sénégalais yi jox président Macky Sall muy ndam loo xam ne depuis président Abdou Diouf nga xam ne boobu partie yi bareeguñu kenn gañeegu fi au premier tour ak score bu ëpp bi nga xam ne moom la président Macky hmm. Sall la am muy cinquante huit pour cent léegi euh, toogagul sax ci deuxième mandat bi ngeen tàmbalee laam laamee ne bu ko neexee yóotu troisième mandat loola itam moom nees koy defee man de defe naa ne yéen a koy laam-laamee déet Ismaïla Madior Fall sa naataango bi njëng justice démb mu nekk ci yéen a naan normalement Macky Sall warta am troisième warta mën a laaj troisième mandat normalement gi lu mu ciy wut. xam nga normalement mooy normalement xam nga li tax ma ne yéen a koy laam-laamee man li ma wóor mooy Ismaïla Madior Fall jógul rek wax loolu dañu ko posé question ci mbirum troisième mandat mu tontu. lu tax lu tax wax lu rek mënul ne. waaye waaye en principe normalement ko kay. day indi lam-lame. Euh, xam nga mënuma tontul Ismaïla Madior Fall mais li nga xam ne moom laa mën a firndeel ma dégge ko ci làmmiñu président Macky Sall ba ñuy bind constitution bi mu ne bindee leen ko noo xam ne du am laam-laam ñu ne ci constitution bi kenn mënula am lu ëpp ñaari mandat yu tegloo ci Sénégal defe naa ne loolu dafa leer ku ci bëgg a gis leneen nag di nga ci gis leneen après ay juriste li ñu wax moo di ne mën nañ ne premier mandat bi juróom-ñaari at la woon ci mandat bële la bokk ci ñu indi loolu nga li ñu wax day am ñaari mandat juróomi at dañ ne mën loolu comme Ablaye wax nul ne peut avoir de deux mandats waxuñu de cinq ans kenn mënula am lu ëpp ñaari mandat ci Sénégal yu tog yu tegaloo yu tegaloo loolu dafa leer ni ñu ko bindee te président Macky Sall tëj débat bi bu yàgg waxal ko boppam ne bii mooy sama dernier mandat defe naa nag. waxoon na fi mandat juróom yi juróom yi at lay def dama ne man li ma mën a jàpp mooy ne li ñu bind leer na li ma jële ci gémmiñu président Macky Sall leer na loolu laa mën a jàpp ne mais Macky moom bu waxee dara bu nu neexee bañ koo gëm ndax wax na fi yu bari yoo xam ni def na saxwaan wa waxoon na fi tam ne sama sama rakk duma ko tabb ci mbiru nguur mu tabb ko. wax na fi juróom-ñaari at def juróom-ñaari at moo tax daal. suñu doon wax Macky Sall vraiment président Macky Sall bi ma xam. Euh, depuis lu ma ñaar fukki at ma ànd ak moom sans inter sans discontinuité li ma xam ci moom mooy lu mu wax nar na ko loolu laa mën a seede ci ki nga xam ne xam naa ko ci muy nit ki waxuma sax président bi mais nit ki. élection locale yi euh, Aïcha Diop Aïcha Aïcha laa doon bëgg a ñëw léegi présidentielle passé na jëm ci locale yi wàllum Ndakaaru comme ni nga ko waxee euh, Khalifa Sall ba fii moo gañu woon ci locale yi le west 2014 tey jii euh, kan nga gis na daal moom ngeen war a mën a tabb ngir mën a yaakaar nangu Dakar ci loxoy Khalifa Sall est-ce que sax loolu dina yomb pour yéen xam nga li li ma li may naxarlu si fi ñu toll nii. est-ce que moom bëgg ko sax. li nga xam ne moom lay naxarul si ñu toll mooy dañu bëgg a xajamal suñu victoire. suñu mandat jeexagul sax ñu bëgg ñoo dugal ci débat yoo xam ne. mais local soreetul premier décembre soreetul bàyyi leen ma ma yeggale rek dangeen ñu bëgg a xajamal suñu victoire bàyyi leen ñu ñu savourer suñu victoire investir suñu candidat ba mu commencé mandaam bu boobaa. ñu soog a débat seen mbootaay gi di benn bokk yaakaar moom mbaa jëmul ci tas waa AFP déjà euh, euh, directeur de cabinet Moustapha Niasse Boun Mohamed Seck wax ca Sud FM ba ki démb ne ñoom dañu am candidat 2024. justement yaa ngi ñu naan ñu bàyyi ngeen savourer victoire yéen victoire bi noppeegu leen sax ci savourer ko euh, ñi ngeen àndal commencé am wenn taxawaay bi. ngeen bëgg ko polier savourer gu ñu sax suñu victoire ngeen bëgg ko polier loolu nag laa man lool laa nanguwul fi ne ci feetu est que nguur gi après seen digg ak leen di jàppale sax du du doon jafe-jafe ci Macky Sall Babacar ma ma ma daaneel Bokk Yaakaar ba mu amee ba tey weer bu nekk ngeen prédiral ñu ne day tas te tasagul juróom at te du tas li nga xam ne li nga xam ne moom la directeur de cabinet wu Moustapha Niass wax président Moustapha Niass muy dëgg AFP dafa amoon candidat ci élection yi parce que AFP dafa investir le président Macky pe PS dafa amoon candidat seen candidat ñoom ñaar ñëpp moo doon président Macky donc bu ñu waxee ne 2024 dañuy am candidat mën nañ ko jàpp waaye candidat boo mën na nekk candidat boo xam ne ci biir Benno Bokk Yaakaar lay ne. Maimouna Ndoye Seck jërëjëf.